xibaar yi li gën a fës ci yenn kaay yi la ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf baa bu jaaxam ak njaaxum li am ci bac bu ren bi loolee la mboolem yéen kay ñu xëyandool xëy tey vox populi nañu ay fuite am na ci épreuve yi baccalauréat bi tax na suuf baa bu jaaxam mi jiite office du bac mu di kër gi gàllu organisation bac gi te am ñenn ñuy laam-laamee naan baa bu jaaxam dafa war a tekki ndombal tànkam maanaam démissionné baa bu nee na démissionné wul ëllëg ci xët mu njëkk journal bi mën nañu digg tempête kenn du ko bandonné yéen ñu it yi nga xam ne nemmeeku nañ ci ay échographie yooyee danañ ko defaat altine fraudekat yi ku ñu ci jàpp ak la ca mën a fekk loolee mi ci journal bi l'observateur nañu baccalauréat 2017 mu di bi teere ji na ci justice procureur de la république dugg na ci dugal ci loxoom sant sandarma yu section recherche yi ñu jóg topp yëf yi cooc ba cosaan ngir xam fan la mbiri seen ne directeur office du bac di baabu jaaxam ak li mu ne jugeegul ci office du bac l'observateur dellu si na ci ci fitna teg leen i jafe-jafe ba bu ñu defaati épreuve yi du xam fan la taxaw dañuy amee perte de repère les éco nañu bac bi jaxasoo na élèves yi boole jaxasoo jaaxle tonk ak kawate français yi am na fuite histojo yi am na fuite te it épreuve mathématique yi ñoo ngi ruumandaat ne am na ay fuite Sud Quotidien nañu bac bi suux na naufrage du bac te ñëpp a dee waaye jogay moom dafa yegg ca wett ja ndax ca Immaculée Conception candidat yi ba ñuy def yeneen i candidat ñoo ngi doon def ay épreuve mathématique ci réew mi La Tribune nañu fuite yi am ci bac bi li muy wane moo di njàngum réew mi gasax na te njaaxum lekk li muy rëy rëy terewul baabu jaaxam moom ne démissionné wul réew mi quotidien nañu donte ñoo ngi koy ŋàññi ak di laam-laame ak demam dafay démissionné ak du démissionné baabu boolewu ci ay waxam mi ngi ne kataw liis mooy ci office du bac direct info mel ne ku naan ñu baabu jaaxam la ñu gis waaye kenn du mari taw ñaan mari taw ñaan ministre de l'enseignement supérieur gaa ñi nee nañu mooy problème supérieur de l'enseignement ba tax na tëbal ko moom Mary Teuw Niane jëlee ko ci enseignement supérieur ndax ak cuuneem nee na fàng ne góomub jën bac bi ak li ci am direct info nañu moo di bac bu ñu dévaluer élèves yu jaxasoo ay parents d'élèves yu jànnaxoo témoigné nañu fuite yi am ci bag bi kilifay réew mi mu di autorité yi dañ ceede def fuite de responsabilité maanaam dañoo daw res ni au lieu ñu annuler bac bi yëpp defaat ko waa office du bac li ñu wax moo di épreuve yi nga xam ne nemmeeku nañ ci ay fraude mu di français beeg histoire bi yooyee la ñuy defaat altine Bakary Badiane mi jiite fédération gi association parents d'élèves yi ne ñu ci xët mu njëkk journal bi li gënoon nag mooy ñu boole lépp defaat li ñu def ci examen baccalauréat yi enquête dina kay xëy ca di ca enquête ba sampu ca laaj mu di li am maanaam fraude yi ndax ak cuune la ak tële wala pexe yàqkat la leneen lu ëlëm journal bi moo di yëf yi ak li coow li bari bari ci réew mi président Macky Sall akub gouvernement am def nañu seen conseil des ministres ba pare waxuñu lu ca jëm fa ñu wax jëmale ca conseil des ministres ba woon démb na lenn ku ci gaayam yi ngir ñu fexe ba campagne bi jaar ci yoon la Sénégal nañu campagne boobee président Macky Sall ñetti milliards la génnee teg ci taabal ji ngir gaayam yi campagne lu amul fenn li amul fenn mi ngi ci l'observateur bi leen journal bi ma nga xewee ca góllëre a ca maatam benn imam bu ñu ma Mamadou Diallo ka ko héberger moo ko soodee ndax ci jamonoy koor gi da koo santoon muy jiite waa këram naa fi la imam bi nangu ba ca biir bëgg caa génnaat waa ji soode ko ba fi mu nekk nii ma nga ci l'hôpital nekk ci diggante dund ak dee moom Mamadou Mouhamed Ndiaye jërëjëf mbokk yenni it jële